lu ñu gën a jege jongante yi ñu tànn ndaw pencum réew mi ñàkk déggoo yi di gën di fës ci biir coalition benn Bokk Yaakaar ak PDS ci booru nguur gi ni ki kuje gi ay parti tàmbali nañ génn ngir demal seen bopp ci législative yi ñenn gis ne bu mu jaaxal kenn bu dee ay liste yu jógee ci benn Bokk Yaakaar tàmbali nañu judd mu mel ni coalition bi narul am majorité ci assemblée nationale loolu nag nar am lu mu jur ci biir gouvernement Macky Sall. xam nga li ñu mën a jàpp te mu doon dëgg mooy. bu ñu génnee ci élection législative yi forcément gouvernement bi fi nekk dina changer ndax day changer totalement ou day changé à moitié ou dafa am lu mais en tous cas dina tenir compte ci élection yi. gouvernement bi euh, normal nécessairement gouvernement provisoire la. Madia Fall di ko xelam màcc ci wàllu politique gis ne liste yu bëri bu amee ci élection législative yi ñu jëm day tax ñu xam ku ne tolluwaayam. mu dolli ci assemblée nationale bi ñu nar a taxawal war naa jiital bëgg-bëggu askan wi. li gënoon ci assemblée nationale bi peut-être mooy que kër yëpp euh, ñii dañu tudd seen bopp socialiste ñii tudd seen bopp ay libéraux kër yi euh, mu war a feeñ ba ñëpp xam ni ku nekk fii nga féete parce que suppukaañe bi ci boppam dafa xaw a yàgg ci réew mi te permettre nit ñi xàmmee. Euh, ku nekk. Madior Fall dolli ci. coalition Benno Bokk Yaakaar bu bëggee mucc foog mu taxawal ab direction politique. li wóor ba wóor mooy. pour bañ a am li amoon de 2000. il faut nga fexe ba ngeen war a mën a ànd ci décision politique yi ngeen war a jubbo ci nan ngeen di doxalee réew mi li ngeen mébatoon nan ngeen ko nar a doxale ñan ñoo koy doxal ak fu nuñ koy doxalee loolu moom nécessairement il faut mu am direction politique bu dee dañu bëgg a continuer ci Benno Bokk Yaakaar. ñu naroon ko taxawal ci fukki fan ak juróom-ñaar weeru juin atum 2012 élection législative yi ñu dàq ko ba benn fan ci weeru sulet bi ñu jëm mu di bés boo xam ni nguur gi niki ku jég yi dañ cee déggoo door kàttan ba léegi ci.